am solo bind ci moom itam lu bari Cheikh Alassane Sène maa ngi lay nuyu am mbégte lool jàkkaarloowaat ak yow tey ci dem ak Tay wala asalaamaaleykum soxna si maa ngi nuyu man tamit euh, waa réew mi FM di ko teg ci sa loxo di sant yàlla bu baax di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment di am mbégte mbégte mu kawe sama njort sax ci tey micro bi nga ma tàllal euh, ngir nga wax ma nañu àndandoo Euh, daal di yaatal benn waxtaan ki gën ñëpp nga xamante ne suñ borom tàggee na ko nu ne ci alquraanu karim loolu mooy mbégte mi ñu am tey ji waaye di fa jaar aussi di ndokkeel nit ñi rabu àll yi ndokkeel doomu aadama yi jullit ak ñu dul jullit ndokkeel ñëpp ci ndam li ñu amaat muy di màggal guddi juddoom bu tedd bi nga xamante ne moo indi àdduna tey ji nit ñi yëkk dëgg-dëgg yërmande suñu borom. macha allah am na solo ñun itam mbégte mu rey la ñu am euh, ci jàkkaarloog yow waxtaanee ki nga xam ni euh, xel ñaar amul ci ne gëstu nga ci moom ay gëstu yu wér ndax euh, livre yi nga teg muy quatre tomes yoo xam ni xam naa ne liir ko dina jël temps bu bëri ku gëstu ci nit lu ni toll war nga koo xam. donte moom kenn mënu koo jeexal ndax géej la macha allah alors tey laaj bu njëkk bi day doon rek kenn na nekkoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw soxna si. Euh, yonent bi nag moom. kenn dong moo ko xam. muy ki nga xamante ni moo ko invité woon au delà du lotus de confin mooy garab gu mag googu nekkoon ci juróom-ñaareelu asamaan ñu koy wax si sidratul muntaha. sun borom di tudd garab googu ci surat mi aaya benn. ba fukk ak juróom-ñett di wax eh, ni yonent bi defee tukki bi ñëw ca moom moom dong suñ borom moo xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tey ji suñu dellu waat rek ne dañuy laaj ci ñun si suñu xam-xam bu gàtt kan mooy yonent bi dañuy wax ne moom mooy sang bépp doomu aadama moom la jibril njëkk a gisee ak moom ci xunt bu ñuy wax xiraa daal di ko jox baatu iqara ne ko eh, jàngal yonent bi am tontu bu mu indi yenn saa sax ma dégg nit ne yonent bi dafa wax ne eh, je ne sais pas lire maanaam mënumaa jàng te waxul loolu daf ko wax ne maanaam bi xaare ma ci ñi war a jàng loolu nag mooy je ne pas de ceux qui ak je ne sais pas dafa waroo moo tax bi nga xamante ne yonent bi wax na Jibril bokkuma ci ñi war a jàng ndekete suñ borom tontu boobu la doon xaar ci yonent bi ngir déclencher alxuraanu karim bi nekk ci biir yonent bi nga xamante ne point central bi wala point focale bi moo nekk nubuwa bi nekk ci wetu omoplate gauche am waaye lii pour finde bi da ngay daw ba ci surat ar-Rahman ci ay benn ñaar ba ñett nga comprendre ne ndekete jibril bu muy indi ñëw di wax yonent bi iqra boobu yonent bi alquran fees na dell ci moom ndekete suñ borom moo ko jàngal ndax moo wax aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim arrahman le tout miséricordieux manteau bu tedd boobu la suñu borom sol ne ko àllamal quran mooy il a enseigné le coran kan loo ko jàngal gën ji mindeef aaya ba ca topp nag mooy finde ndax dafa wax xalaxal insaan Euh, daf ko jàngal alxuraan ci ay ñaar bi affaire de faire de lui témoin privilégié jamono bi muy sàkkee doomu aadama xalaxal insaan neex naa gëm nag ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo jiitu maamu aadam ci sàkk bi ñu ko sàkk ndax fekke na moom jamono bi ñuy sàkk dëgg maamu aadama ak yeneen ya ca topp ndax suñ borom benn wéttal la amoon muy leeru gën gi mbindéef laataa mu koy yónnee ci jamono pendant pendant vingt-trois ans lors d'une grande mission bi nga xam moo libéré doomu aadama delloo ñu ñun ñëpp ñu dagg buumu njaam yi delloo ñu ñi pauvre ak ñi am benn yoon di leen àtte ñu dëkkandoo di lëkkaloo di jonjonte ay mbagg loolu yëpp yonent bi lal ko ci diine boo xamante ne moo doom sellal xol yi. parce que avant yonent bi daawul demee noonu. déedéet avant gisoon nañu li xewoon dans le Hijaz ci septième septième siècle gis nañu ne nit daan na am euh, doom rey ko gis nañu ne nit daanu woon am ay ay ci soxna jaamur gisoon nañu aussi ni nga xamante ne noonu lañ doom nootee ñi amul doole gis nañu aussi nekk que y famille des familles yoo xamante ne ñoo gérer le commerce autour de la Kaaba te lépp ñu laloon ko ci ay idolâtrie yonent bi nag alayhi salaatu yàlla yebal ko avant avant muy am 40 ans moom xam na li war a xew ci moom mais sunu borom jox yonent bi mu am sutura bu matt am dépassement am hauteur am clairvoyance ba nga xamante ni li nga xamante ne moo war a xew ci su amee 40 ans yonent bi dencal ko boppam mu nekk un grand secret dafa mel ni bi nga xamante ne yonent bi mu ngi war a dem ci le voyage nocturne Isra wal Mihraj yàlla indi na ko ci surat Isra wal Mihraj ci aaya benn bi di wax ne subhaana alladi asra bi abdihi leylan min al masjidi ila al masjidi al barakna xawlawo li nuriyewo min ayatina innahu huwa samiul basir yàlla dafa bàkk boppam gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al haram à la mosquée al dont nous avons béni l'alentour afin de lui montrer certaines de nos grandes merveilles mais soo dégloo afin de lui montrer certaines de nos grandes merveilles ak nga demaat ci surat naj mi ci aaya 18 yàlla di waxaat afin de lui montrer nos merveilles nga xamante ne donc yonent bi demul benn yoon rek ci tukki dem ci suñu borom li koy firnde ci surat naj mi ba tey euh, yàlla yàlla wax na ndax da ngeen a weddi ne ñëw na ci man moom mu tontuwaat suñu borom ne ah ñëw na ci man lors d'une autre descente te dans le Coran yàlla nee na borom yi xel yi lay waxal. Mm-hmm. borom xel yooyu daf leen wax ñuy ñuy xalaat mm-hmm. li mu bind yónnee ñu eh, xalaat boobu ñuy xalaat du mooy permettre ñu mun a firi alxuraan mais moo ñuy permettre ñu nekk en phase. Mm-hmm. ak li mu bind. di ko dund mooy indi dund boobu ngay dund mooy indi nga dem ba cofeel daal di jóge ci yow eh, eh, tàbbi ci ci gën gi mi def ki gën ñëpp. moom sallallahu alayhi wa sallam. alors foofu damay ubbi parenthèse euh, ci fi nga wax lan moo la boole ak euh, yonent bi ba tax tey ku la xalaat sa sa wax yëpp sax euh, daanaka sur les réseaux sociaux et partout sa bind yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tënkuwul ci moom ba jeexit du ca du ca ñàkk lan moo la boole lan moo la xiir ci ngay gëstu ci moom ba def liggéey bi nga def yëpp. waaw ndimbalu yàlla ku ñu dimbali rek moo fi nekk. sunu borom bi ma bëggee dimbali la ma la ma la ma la ma la tàbbal ci cofeel ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam cofeel gi nag dama koy faral di wax euh, ne xëy na pënd laa pënd laa ci jot ci ñi nga xamante ni dëgg dëgg ñoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, maanaam dama cee ànd ak dal ànd ci ak euh, humilité wax daanaka sax su ma géntoon gis ko duma ko waxtaanee Euh, donte daluma euh, yëg-yëg bi ma am ci moom aussi li ci ëpp solo aussi duma ko partager ndax pour man c'est une euh, question privée mais li ëpp solo mooy saa yu ma toogee journée bi sama xel ak sama xol yëpp ci moom moom lay dem moom gën gi mbindeef ba ca des li daloon lamartin dal Goethe dal Gandhi dal Victor Hugo dal Cheikh Ahmad Badawi bi nekkoon tànta dal Cheikh Ibrahim Dissouqi bi nekk di Dissouqi dal Cheikhul xadim dal Seydi Haji Malick dal Cheikh al Islam dal yeneeni ponkal yu nekk ci àdduna dal Rumi gis nga ni nga xamante ne noonu la doon feccee ak li doon bàyyikoo ci moom su feccee ak ni mu doom taggee yonent bi sallallahu alayhi wa xeetu cofeel googu moo ñu moo ñu dugg maanaam je suis par la haute créature du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa loolu nag du ma du ma ci gan. Mhm. Euh, pënd laa ci comme ni ma ko waxee. te li ma dal ci moom moo dal bépp jullit moo waral aussi nga gis àdduna bi saa ñu cofee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo am ay mouvement de protestation un peu partout dans le monde. alors Muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam euh, mi nga ñu wax mooy ki nga xam ne ci diine yàlla moo ko sàkk yónni ko ci doomu aadama yi def ko ni mu ko def mhm. waaye mu ñëw nag ci àddina am fi taxawaay en tant que nit mhm. en tant que kilifa mhm. parce qu'il fut un chef d'état buñ ko mun a waxee noonu un chef de guerre nekkoon na ku jiite armée doon xeex ngir défendre islam donc euh, facette yu Muhammad yooyu sallallahu alayhi wa euh, mën nga ñu ko présenter waaw xam nga yonent bi nit ku amoon clairvoyance la Euh, yàlla rof ci moom intelligence bu jéggi dayoo maanaam euh, ci jamono ji ñu nekk su suñu waxee ne les hommes les plus doués de cet univers yàlla miy ubbi seen capacité cérébrale à hauteur de 10 pour cent ñooñu mooy nit ñi gën a yeewu ci àdduna ñoo ñoo ñoo defar ay ngànnaay ñoo defar làmp bi ñoo defar ay tali ñoo mën a tam toog téeméeri nit wër leen ñu xam ñoom ñëpp seen tur ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee les doués vraiment ci ci àdduna bi yàlla romb loolu ubbi capacité cérébrale bu yonent bi à cent pour cent moo tax su ma déggee parfois chef benn chef religieux wala kenn ku nekk fii ci réew mi ne man de du def politique da ngay waroo ak yonent bi parce que politique li ko tax a jóg mooy art de gérer une cité yonent bi nag loolu la taxaw woon d'abord gisoon inégalité sociale yi amoon dans le Hijaz mu combattre leen benn par benn mais intelligemment euh, mu doom def tamit ba ñi néew doole yoon bi leen di àtte mu nekk même yoon bi àtte ñi am doole mu wëlbatiku la classe bourgeoise bi nekkoon à la mu fexe moom ci naxante ci stratégie ba dem ba ñoom ñu mun a jonjoo mbagg ak jaam ak baadoo la parce que moo dagg buumu njaam yi moo indi aussi ba ku ñuy wax bourgeois dem ba mun a sëy ak ku ñuy wax baadoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo dem encore ba indi une chaîne de solidarité ñi am alal tàmbalee di dimbali ñi néew doole sallallahu alayhi wa sallam indi leen téere alquran bi yàlla wax ne téere bi fàttewul dara ma farat naa fi kitaabi min mu indi ko décortiquer ko fexe mu dugg ci dënn yi mu nekk nag cëslaayu code de conduite nit ñi diggante Màkka ba Madina walbatiku mujje weesaare fépp ci àdduna bi lii nag soxna si moo indi tey ji ma def sax euh, benn benn euh, benn transition mm. moo indi tey ji ba la France au-delà de de xëy na yaa ngi ma waroon laaj question bi sax mm-hmm. mais euh, waxtu bi moo ko indi ba la France au-delà de Euh, Macron déclaration bi la France est un pays très organisé avec une démocratie boo xamante ne euh, euh, yàgg na ci àdduna munoo citer pays yi ëpp liberté ci àdduna te boole woo ci la France munoo citer aussi dëkk yi ëpp ay information renseignements généraux te boole woo ci la France ñu am ay bureau stratégie et méthode bureau démographique yoo xamante ne dina leen wax ne seen population fan la toll ak fan la jëm fii ak 10 ans fan la jëm fii ak 20 ans la France dem ba comprendre ne que Élysée suñu moytuwul du yàgg dara dina mus a am un président musulman te ku xam France laïcité bi muy wootee dëgg dëgg dëgg def ci bëgg écarter la religion musulmane loolu mooy dëgg moo tax. Euh, Macron bi mu jotee information yi mu mel ni tey ku jëfur mais c'est compréhensible pour euh, trois raisons bi ci jiitu Macron dafa am ñeent fukki at nekk président di doog dugg ci àdduna di fa waaj di dugg ci Élysée duggaaleeg soxna soo xamante ne moom presque mi génn aussi ci àdduna ndax euh, génn si àdduna waxuma gaañu. mais maa ngi wax kuy koo xamante ni def na temps am. âge moom lay wax ni ñoom ñaar. ñu bokk dëkkandoo ci benn kër goo xamante ni presque douze mille mètres la muy Élysée euh, nekk ci benn appartement boo xamante ne trois cent mètres carré la ci biir Élysée d'abord conflit de génération na posé wu entre ñoom ñaar dans tous les sens beneen bi ki nga xamante ne wax nañu Macron ne mi ngi euh, li mu indi muy dina islam dina mës a menacer la la République française Macron bëgg na comprendre kii dëgg-dëgg kan la moo tax mu bëgg a la France wax ne que daañu perpétuer les libertés su fekkee ne tey jii suñu attaqué en France yaxut dañuy wax ne que euh, loolu euh, acte bu ñuy condamné la mën na nit mun na ci tëdd kaso mais su fekkee ne dañu attaqué la religion musulmane dañuy wax ne liberté d'expression donc kooku dañ ko bëgg écarter ci euh, la la la France dans dans dans toutes ses composantes lii moo indi Macron tiit lii moo indi mu jaaxle mais moom xam na ne nit dootul gën yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam te France bi mu bëgg protégé ci yonent bi ak ñi ko bëgg ñi ko gëm bañ ko envahir loolu rëcc na seen loxo nous sommes ils sont ils sont obligés d'aller vers une présidence dirigé par un musulman et je pense que loolu yàggatul dara d'accord kon daal yow comprendre nga Macron parce que mhm. euh, lii dal ci kawam yëpp aussi euh, mu jot ko comme ay information mun naan dafa dal ci kawam parce que effet surprise bi xëy na mhm. moom moo ko wax loo mhm. ne si attendait pas léegi ci biir loolu attitude ban la jullit ñi war a am vis-à-vis de cette France qui a peur euh, ku mel ni Macron ak ragal gi mu ragal tey ci sa xalaat ak li nga xam ci yonent bi bu fi newoon ban attitude lan la ñuy wax yor leen que yéen jullit ñi en face de ñoom mooy mooy mooy la tolérance le pardon le dépassement waaye nag da ngay comprendre soxna si dafa am ñoo xamante ne am nañu cofeel ba pare nekk ay extrémiste seeni actes yi ñuy def adduna bi ñëpp koy condamné mais su loolu wéyee li nga xamante ne moom la nit ku baax di éviter mooy nga fekk koo xam ne c'est un leader charismatique ñu bëgg ko partout dans le monde yàlla yebal ko muy servir ruux yi waxatuma yaram yi ruux yi mu leen di servir kooku kenn waru ko exposer aux caricatures loolu mooy benn ñaareel ba su fekkoon ne Macron amoon na expérience li mu waroon def mooy condamner acte yi nga xamante ne am na ba nit euh, bakkan rot ci mais ensuite appeler à la tolerance et au respect des fondements des autres religions yi nga xamante ne ñi ngi nekk tey ji bokk ci cëslaayu la cinquième république pour man c'est une c'est une erreur mais Macron li Erdogan wax rek lay dellu si waat dafa wax ne Macron dañu war a seet ndax mentalement wér na mais li ma ciy toftal ci wax jooju mooy Macron ku ñu war a dimbali la ku war a xam la puissance de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su xamee puissance ba noppi jar na xamal aussi nekk question yi ngay laaj ci gën gi mindeef soo amee tontu yi nga dimbali sa bopp déglu tontu yi dina la may nga am paix ak sa jëmm Macron amul paix ak jëmmam soo gisee mu dox wala mu wax il cherche toujours à convaincre son public maanaam saa yu jëlee micro dafa bëgg à travers dicton bi mu yor ak ni muy harmoniser euh, phrase yi muy wax mu bëgg saa su waxee ba noppi rek que ñi ko wër ñëpp loolu tamit euh, soo ko xoolee soxna si insuffisance la moo tax tey li mu soxla dëgg dëgg dëgg mooy retrouver jàmm ak jëmmam mais pour mu retrouver ko nag man li ma gëm mooy Macron du yàgg dara dina bokk ci soppe yonent yu mag yi mu xam ko ak mu bañ ko xam mais ci loolu la jëm du ci du ci doon euh, gan aussi parce que ñu bëri jaar nañu foofu ba mujjee ko bëgg lool macha allah ndax moom ku ko seet rek boo ko gisee yaakaar naa ne mënoo ko bañ daf ñuy delloo démba ndax euh, xëy na démb caricature amul woon waaye ci bi muy door xeex nañ ko te ay mbokkam yi ko jege lool def ko lu metti ba mu génn màkk ga mu nekkoon dem Medina ga mu tëdd tey sallallahu alayhi wa sallam démbam gu metti googu loolu ñu ci mën a wax waaw léegi nag soxna si démb gi lu mu tar li yéem àdduna mooy dañu wax ne yonent bi jamono ji nga xamante ni dañ ko fitnaal dëgg biir màkk saa yoo ko xoolee muuñ gi musta jóge ci kanamam keroog la gën a baax keroog la gën a baax keroog la gën a mun a indi reewam gu tedd gi parce que nag bul fàtte yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanam gi da doom nes nesi mel ni dañ ci sotti ay ay ay pépite wurus yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa yu muuñaan dafa am ñaari sacré yàlla ci kaw ak ci suuf mais diggante bi aussi yeneen bëñ yi benn sësu si moroomam loolu nag li ko waral mooy saa yu la ne jàkk ba yónnee la ree yàlla génn na ci gémmiñ gi benn leer gu dugg sa yaram daal di la dalal la ca topp mooy soxna si bi nga xamante ne waa Màkka génn nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dem ci exil bi yàlla daf ko wax baat bu am solo te boobu mi ngi nekk ci fitna mu wax ko inna fatahna laka fathan mubinan et certes nous t'avons accordé une victoire éclatante waa Màkka dañu reetaan waaye ñu fàttaliku ne yàlla lu mus a diggal yonent bi def na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp loo xamante ne yàlla waxoon na ne lii laa bëgg nga jëfee jëf na ko ba suñ borom wax ko ci alquranu karim et tu es d'une éminente moralité wa innaka la ala xuluqin azim lii la wax yonent bi ndax mhm. ndax su fekkoon yàlla dafa am xol dañuy wax xol bu sedd mhm. la ko waxee ah. mais soxna si lii yéeme dama ko wax ci benn taalif mhm. ma wax ne sa del si màkka fay na naxar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale lii la tax ñu sopp la ndax bi mu jógee Madina di dellu siwaat màkka douze mille hommes la teersee biir màkka mais duggul màkka directement yonent bi c'était un fin stratège Eh, ñi mu àndal dañoo wër périphérie Makka xaw a nekk en hauteur ci montagne yi yonent bi daal di tàlloo kenn ku ne safara bis boobu li may wax nag lu lu lu la pour wane li mu bëggoon moom mu am Makka te deret du tuuru bi ñu taalee safara bi safara boo xam dañ ko taal en auteur dafay leeral digg màkk dafa leer naññ ba ku pusoom wàddoon sax mun nga ko for waa màkk daje waxtaan ni kii ak li mu àndal ci mbooloo ëpp na cent mille hommes nañu négocier ngir jàmm am moo gën ñu ne la xeexa moom ndax suñu xeexee daañu rey toroxal ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi jot waa màkk organisé wu yebal délégation ñëw waxtaan ak moom lii moo indi gën gi mindeef dugg màkk te deret tuuruwul. dañ jàppoon ne day ñëw fayu si. waaw ndax nañ ko fa génnewee. li ci gën xëy na bu newoon bëreet seen kaw rek ñu fippu. yaakaar ne du ñu comprendre. dëgg la mais li ci yéeme mooy bi mu duggee nag ba libeere kaaba ji déy nañ ko moom gën gi mindeef ne ko léegi mën ngaa daagu dem jël sa kër gi nga dëkkoon ak Khadija génne ña fa nekk. sallallahu alayhi wa sallam lii nag moo indi Gandhi wax ne. li ko gën a yéem mooy xol bu yaatu bi gën gi mi def yoroon yonent bi wax ne bëggul déranger ñi squatté woon këram dañ ko utal fu mu nekk moom le temps muy delluwaat Madina mais ci biir loolu soxna si waa Madina yi mu àndal ñëw Màkka waa Ansaar dañoo toog réunion seen biir ne waaw yonent bi am ndam ci biir yi ay mbokkam ak ni mu leen bëggee ak ni mu fexee dugg fii te deret tuuruwul ndax du toogaat ak ñoom. waaw ñu ñëw laaj ko. Mm-hmm. mu ne lan laa leen tontu woon ci jamono mooy da nga ni woon fu ñu nekk rek ngay nekk mu nekkoon kon nañu waaj takk suñu bagage ndax dans deux jours dañuy ñibbiwaat mm-hmm. kenn du gën gi mi soxna si. Mm-hmm. koo ko tëkkaleel nax nga ko moo tax man ma wax ne koo yaakaar kamu yaakaar kooku kamu yaakaar gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam la yaakaar moo tax bis penc soxna si ñun taalibe ñun ñii di taalibe ak sëriñ si ñëpp yàlla daf leen di privé parole kenn rek moo am kàddu bispenc penc muy gën gi mbindeef yàlla dina ko takkal grade bu mag ñu koy wax ashafaatul uzma le grade de la grande intercession grade boobu mu ko takkal mooy permettre yonent bi ràmm kuy jullit ak kudul jullit wax ko wax bu yéeme ne ko yaa muhammad wasal tuxta dina ko ko wax waxul tusma dina ko ko wax dina ko wax aussi ràmmul ma nangul la mais balaay loolu yëpp di di am daf koy wax ne taxta arshu rahman ñëwal nga fóon lu trône de la miséricorde mosu ko may kenn moom suñu borom wanoon na ko ko nag au delà du lotus des confins wan ko naka la trône bi meloon moom gën gi mi def teg ci bëtam ndax sooklu trône bi leer gi mu sàkkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko wisee moom lay xeeñ leer googu nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam aussi moom la ñu ballalee géej googu nga xam ne moom la jagleel yonent bi muy Kawsar moo tax ma ne kenn du gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak waa Madina mu wone fa ngor mhm. ndax tey buñ la dàqee woon ci say mbokk mhm. nga dem fenn ñu dalal la bu la say mbokk xëccaatee bu dee sama classe gi boo mooy la ngay ñëwaat ci say mbokk mhm. ndax dañ naan ku jàppul euh, sa mbokk mbokk jàmbur ngay jàpp waaye mu dem àndaat ak ñoom euh, sallallahu alayhi wa sallam itam euh, damay faral di wax ne obligation la ci jullit ñi ñuy julli ci moom di ko ñaanal ndax li mu daj ba ñu jot ci diine ji kenn ci ñun attanu ko euh, foofa damay bëgg a ñëw ci xeex yi nga xam ne xeex na ko ngir taxawu islaam xeex yi nga xam ne xeex na ko ba tax tey ñun ñu toog fii di jullee ka ñaan bay euh, xam yenn yoo xam ne bu nu ko defee jot ci xéewali borom yooyu yëpp moo nu ko jàngal jaar-jaaram yu métti yooyu ci ay xeex ci ay fitna euh, nga dikkal ñu ci waaw ñu xamee ni nag yonent bi mosuta sooke xeex aussi mm-hmm. lépp ay réplique la loolu lu am solo la mm-hmm. parce que moom ni nitu jàmm la du yee fitna moom gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla dimbali na ko mu lalal ko ay stratégie moo tax mu nekkoon un chef de guerre incomparable amul kenn ko ko mën a méngaleel ci àdduna ndax stratégie yi mu amoon ci jamono saa yu waree jàkkaarloo ak ennemi yi moom yonent bi xam na défaite xam na victoire en temps de guerre mm-hmm. léegi nag loolu il faut nga am ci compréhension Eh, ñàkk ndam ak am ndam ay jëmm la suñ borom moo leen créer kenn ku nekk bëggoon na ziar si gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan gi mu ñaan suñu borom suñu borom may leen ñu mën a fréquenter yonent bi dafa mel ni soo ne yonent bi mës naa xiif damay wax ne dangay wax ne xiif mës naa gane si yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xamante ne nag ñoo ñaan ba sonn pour gane si yonent bi te mësuñu ko am mbon bokk na ci fexe na lu ne pour gane si yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla boolewu ko ci schéma te suñ suñ borom daa am leneen lu mu wax ci kanamu ennemi yi wa taxsha naasa wallahu ahaqu an taxsha mooy le plus grand défenseur gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam jamono bi mu amee guerre ak jamono bi nga xamante ni tam mi ngi preché pour nit ñi wuy ko ci diine islam ba léegi soo xoolee guerre yi yi nga xam ne jot na am lépp rek mi ngi tege woon pour indi justice ci biir Hijaz dans le septième siècle parce que nit ñi dañu daan boom nit nangu alalam dañu daan boom nit nangu soxnaam dañu daan boom nit nangu këram dañu daan boob nit ngir euh, nësaxal ko ci biiri askanam yooyu moo doon combat de principe yu gën gi mi de sallallahu alayhi wa yàlla def après 23 ans yi mu combattre yooyu yàlla def ba moom mu mu jox raison yonent bi diggoon na ko ko mooyu cette victoire éclatante yonent bi daal di ko lal ci Hijaz la model nag prophétique bi lalu foofu àdduna bi fépp fu ñu ko mës a mu jàll moo indi tey ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou fii ci sunu réew feeñal sheikh Ahmad Bamba feeñal Seydi Hadji Malick bëri ndongo ci réew mi ndax précurseur la ci diine islaam fii ci réew mi moo indi mu amoon taxawaay bu rëy jël dundam yépp jox ko gën gi mindeef sallallahu alayhi wa loolu ki feeñaloon gën gi mindeef muy Aïssa moo wax yatimin baax di ismu Ahmad maa ngi dem sama ginnaaw am na kuy ñëw Ahmad la tudd amul bàmmeel soo seetloo léegi ba léegi ki nga xamante ne aussi moo feeñal Cheikhul Khadim Khadimu Rasul fii ci Touba Cheikh Omar Foutiyou moom itamit amul bàmmeel mu nekk ay signes yu kawe ci diggante soppe yooyu. alors ñuy waxtaanee euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di ko ko njukkalee ci gàmm gi ñu génn waaye itam ci contexte bi ñu nekk dalal ci euh, Cheikh Alassane Sène mi nga xam ne ku ko xam ci yonent bi nga ko xam sallallahu alayhi wa sallam alors au delà du chef d'état bi chef de guerre bi nekkoon na itam nit koo xam ne yoroon na njaboot am nu mu jëflanteeg ñoom bëgg ñu roy ci xëy na ci jikko yooyu ak comportement yi nga may ci yenn borom kër yi euh, ngir itam euh, loolooy solo sa waxtaan wi sallallahu alayhi wa sallam hmm, maanaam soxna si sooy liir histoire am dafa am benn boroom xam-xam prêtre roumain Virgile Georgiou lañ koy wooye nee na yàgg naa gis nit ku tedd nit ku oyof nit ku dal ba tàyyi waaye ku mel ni Muhammad bi ci Hijaaz musuma gis ku mel noonu te yaakaaruma aussi ku mel ni moom encore yàlla sàkkaat ku mel ni moom li ko waral nag mooy tey ji man rek su ma amoon tey ñaari taalibe duñu ma gis mukk ma dem marché ne maay duggal sama soxna mhm. sallallahu alayhi wa sallam def na ko duñ ma gis mukk ma waasal jën sama soxna moom yonent bi def na ko duñ ma gis mukk may fobeere kër gi parce que dañuy wax ni sëriñ bi bul dégrader sa bopp moom yonent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam tingoom na sax ay soxnaam ñuy seetaan ay xew-xew yu xew ca mbedd yonent bi alayhi xale bu ndaw daan na ko tàddeel ci biti ay histoire am na ci xale bu réeraloon dara mu sëgg di ko ko foral di ko foral di ko seetal ba ñu for ko dem kër ga waxanteeg waajuru ñooñu bi ñu gisee yonent bi gis ni mu sonnee ci xale bi loolu mu réeral dañoo mujjee dugg ci diine islaam sallallahu alayhi wa sallam mosoo bif yéreem mu xool la te yónneewu la ree d'abord balaa muy comprendre li nga def lan la te su fekkoon ne ñun la koo ci bif yéreem mu attaqué la euh, guerre nii la taxee woon ak njabootam moom gën gi mbindéef amoon compréhension amoon dal moo tax bi mu jógee ci xontu xiira pour la première fois demul seeti nijaay demul seeti xarit demul seeti kenn ku ko jege woon kuddul soxnaam soxna Khadija daw yegsi si moom mais xoolal ni ko soxna Khadija dalale da ko ne yow doo doo da ngay dimbali jirim danga yaru danga dal danga bëgg doomu aadama te danga nga da nga da nga droit da jub mu ne lii nga gis nii dëgg la jibril nga gis lii nga gis ni aussi yàlla moo ko yebal ci yow moom sallallahu alayhi wa sallam waaw munu munul nekk loolu la soxna Khadija dalale gën gi mbindéef moo tax euh, société bii ñu nekk ñun il faut que ñun ñëpp ñu am compréhension ne jigéen mooy le plus grand trésor yàlla sur terre ah li ko waral nag damay joxe benn exemple bu ndaw rek dafa am ñaari xale ku mag ak ku ndaw ku mag ki yàlla may ko xéewal guddi gu jot dafay ubbi ay buntam di recevoir nit ñi di leen jox di leen jox ba fajar jot mu doog a dem tëddi bi mu génnee àdduna rakk ji doon donn ko donn alal ji dem seeti yaayam ne ko yaay bis ne tey sama mag la mu daan def lépp lay def mu ne ko bul dugg ca loolu mu ne yaay lu tax mu ne bi ngeen nekkee xale sa mag su ma ko daan jox sama ween guddi pour mu nàmp tuuti lay nàmp bàyyi ma nelaw mu ne yow su ma la daan jox ween da ngay nàmp ba nelaw soo nelawee yàbbi ko soo tiitaatee yeew da ngay jooy seexaat ko ba fajar doo bàyyi sama ween ma xam nekk sa mag ji ku nar dimbalee la mais yow mi aussi soo dimbalee aussi di nga am foo ci yem wala nga jéppi nit ñi après xale bi déggul conseil yaayam mu dugg ca mbir ma ñu def ñeenti fan rek mu commencé jéppi nit ñi <laughs> fukki fan mu commencé leen dàq kër ga ñaar fukki fan mu tëj kër ga daa dem ca yaay ja ne ko yaay xawma lan la de waaye yow comme wàllu yu ndax li nga ma wax nii dëgg-dëgg dund naa ko moo tax sama kër tëj naa ko lii sama frère daan def mënu ma ko mu ne ah waxoon naa la ko donc dafay firnde cër bi jigéen am ci société bi ñu nekk dafa jara fonk dafa jara respecté dafa jara yëkkati dafa jara sargal dafa jara aussi di sago mm-hmm. ndax jigéen mooy mooy lépp bañ na ba yonent bi alayhi salaatu salaam ci bu jigéen mm-hmm. la génnee àdduna yonent bi ci peggu jigéen la gane àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam jigéen moo ko njëkk dalal bi mu gisee li muy gis bokkoon na aussi ñi ko gënoon topp aussi diggante Màkka ak Madine ay jigéen la ñu woon ndax li ñu gisoon ci moom d'abord taar gi ensuite xol bi mu amoon ngir ànd ak doomu aadama ba pare nangu tolloog ñoom donte moom la yàlla def muy gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam. xam naa ne ñàkkul yërmande gi aussi bokk na ci li attiré euh, macha allah foofu dañuy yegsi ci ay jikkoom nag. Mhm. jikko yonent bi wax nga fi yenn yoo xam ne war nañ ci roy waaye yàlla daf nu ko loo bu mhm. nu bëggee texe. Mhm. kon ay jikkoom day baax boo ñu ci mënee dikkal bu baax a baax bu ko defee ñiy déglu ak ñun ñi ñu mën cee fàttali suñu bopp am yoo xam ne xëy na dinañu may ñu mën a defaraat suñu toogin euh, ci ci àdduna. waaw soo xoolee am na 201 attributs yoo xamante ne nit ñi miin nañu ko. yépp ay jikko yu yàlla di tagg ci moom la dafa baax dafa yiw dafa bëri yërmande dafa tedd dafa tabe dafa lewet jikko yooyu nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bu ne dafa mel ni benn baat bu nekk ci alquraanu karim moo bi ñu laajee soxna Aïcha radiallahu anha ne ko kan mooy gën gi mbindeef dafa wax ne gën gi mbindeef alquran buy dox la loolu mooy dëgg ah. ndax noonu la taxawee woon arafu alxuraan bu ne dafa mel ni dafa nekk ay cëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, pleinement mm-hmm. li koy li ma bëgg wax ni ci lii soxna Fatima ak Zahra mm-hmm. di doom ci gën gi mindeef mm-hmm. ndax laataa yonent bi di génn àdduna doom bu jigéen boobu rek la des ci kaw suuf moo tax woykat bu mag bi ñuy wax Um Kalsum nekkoon ci Égypte dafa am benn way bu mu way daal di jékki-jékki rek wax ne euh, Fatima alma sa baay bu tedd bi makañ ko Fatima moomu dafa am bis euh, moom xam ngeen ne boroom këram Seydina Alioune dafa nekkoon néew di doole bu metti mu am bis nag Fatima bëggoon jànq bu ñëw di leen jàppale ca kër ga mu am ñuy jàppoon ci benn guerre am ay nit ñu bindu ca liste ba Fatima bëgg ñëw bindu ca liste ba jiitu ca liste ba yonent bi bi nga xamante ne yëg na loolu dafa wax ne Fatima mënuloo am ndax da ngaa yéex a bindu loolu gisuma ci kaw suuf ku koy def loolu benn la miraasu gën gi mbindeef aussi amul dara lu mu jag leen njabootam xëy na après ay conflits juddu nañ ci mais moom amul dara lu mu jagle loolu ay njabootam ba ca des bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam demee ba nga xamante ni Hijaaz ku fay buur dugg nga ci diine islaam ba kenn ku ne di ko wax ni kaay ma jox la sama pale nga dëkkee ci yonent bi néeg ba mu daan tëdd lal ba mu daan tëdd ya mu daan utiliser si néeg ba dara soppeeku ci ba ci lal bi pajaas ba fa nekkoon mu ci daan tëdd nga xam ne ay xobu garab lañ jëloon def ko ci benn mbuus ñaw ko loolu sax soppiwu ko. daan métti sax yenn saxaaba yi yaramam ba pare yaramam aussi soo xoolaan yaramu yonent bi léegi néegu yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon na ñaari sarale benn bi dañ ci meloon lu ci def benn rido benn bi ñu mel ni lu ci sànni benn sàkket amul woon pro chef protocole amul woon garde du corps moom gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam accessible moom gën gi mindeef le meilleur des hommes mel noonu te tey ji muy man muy keneen grade bu ndaw rekk soo ko amee waaw loolu benn la ñaareel ba suñu doxin day soppeeku ñetteel ba suñu toogee ñun dañuy aduler comme yàlla société bi aussi moo bindoo noonu moo tax yenn saa yi may wax euh, sama benn wóolare mu may wax ni il faut restaurer l'ordre dans ce pays ma ne ko c'est trop tard nu devons aller vers l'organisation du désordre intelligemment loolu la suñu société soxla jamono ji <laughs> <laughs> waaw alors euh, tey euh, fi jamono toll la mhm. lan nga jàpp ne yonent bi bëggoon nañu taxawee ko sallallahu alayhi wa sallam te mu manqué fi ndax tamit da ngay dégg yenn saa ay critique ci ay jullit yoo xam ni dañuy identifié woo ci yonent bi euh, mu lay metti lool mais da ngay gis ni doxinam wax dëgg yàlla wute na ak li yonent bi santaane maa ngi ñëw ci l'après Muhammad parce que euh, démb ak tey la ñu wax mm-hmm. donc démb bi mu fi nekkee donte ay jafe-jafe ñàkkul woon mais tey ginnaawam noo ko gisee ak jullit ñeek ndax ñu ngi koy euh, gëstu tagg Muhammad baax na sallallahu alayhi wa way ko baax na yaakaar naa ne li gën mooy ñu am lu ñu jàngee ci moom loo taxoon sànq ma ñëw ci jikko yi bu ko defee ñu fàttali suñu bopp parce que tamit xam naa ne su fi ne woon tagg yeeg way yi du ko bañ gaamu giit du ko bañ waaye li koy gënal mooy ñu roy ko dund sunnaam bi nga xam ne bëgg na bu ëllëgee bu buñ taxawee ñu bokk ci li muy ndamoo ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala waaw loolu tamit soxna si euh, question bu complexe la li tax mu complexe damay indi d'abord Jésus ak Marie Madeleine ci Constantinople Jésus wax ne que celui qui n'a jamais péché lui la première pierre ba léegi doj jógul ndax nit ñi bi ñu xooloontee seen biir ku ne am nga loo xamante ne defoon nga ko mhm. nga daal di obligé teg sa doj mhm. Marie Madeleine mujjee mucc mhm. tant que suñu société aussi ñi jiite ak ñi ñu jiitu ñu comprendre ay nit rek lañu yoo xamante ne chaque jour ñu ngi jéem jëm vers la perfection donte mënuñu ci yegg ndax c'est un domaine réservé tant que ci loolu dañuy nekk rek ci ay jafe-jafe ak ay conflits ci suñu biir bi ci topp yaa ngi wax ne jëfe sunnaam moom gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa ñaari mbir nag moo ko waralal benn bi mooy tolérance d'abord am na solo te manqué na soo xoolee tey euh, yaa ngi gis ne sëriñ si yu bëri ñu ngi leen di attaqué mm. parce que dañu manqué de tolérance et de communication beneen bi ci topp mooy dafa manqué aussi chaîne de solidarité mm. du ma tudd tur mais da ngay gis parfois benn sëriñ bu am benn taalibe mm. taalibe bi daan def lu bëri ci këram dem ba mënatul sëriñ bi continuer di mënal boppam te du geestu taalibe boobu mukk ci àdduna loolu si ku la mënul nag dimbali ci loolu ci kaw suuf bis penc mënul la dara moo tax ñu war a dellu si ñun maanaam diggante sëriñ ak taalibe ñépp àndandoo ñu daldi def aw say rek dëgmal gën gi mindeef di ñaan sunu boroom lépp loo xamante ne ayib la ci ñun mu soril ñu ko ba pare may ñu ñu tënku ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënku ci sunna bi nag ndimbalu borom bi lay doon am na effort yu nit di def dëgg la maanaam mu am automatisme di julli am automatisme di baale am automatisme di dimbale li ci des nag suñu borom mottali ko def ko mu mel ni kuy tirer vers la perfection ñun tamit eh, si suñu société wala au-delà de cette société loolu lañu war a am comme taxawaay tey jii soxna si Arabie Saoudite soo gisee euh, euh, su aj màkka amee wala umra dañuy amassé ay milliards de dollars mais li ñuy jox ñun suñu dëkk yi mooy xar yooyu ñuy rendi bi su tabaski ñu séddale ko su ko defee ñu ne xoolal teraanga bu rëy bi ñu defal te année alal bi tey ji ku mel ni Arabie Saoudite am na ay centaines de milliards de dollars de réserve yoo xamante ne su ko neexoon su si génne woon 30 pour cent ndóol daal di jóge ci àdduna loolu mooy benn ñaareel ba su fekkoon ne tey ji le waqf mooy le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde nga xamante ne 2000 milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds su ñu ko jëloon ñu jagleel ko encore suñu dëkku africain yi mais ci beneen démarche nag pas démarche bi ñu adap adapté maa ngi koy wax benn bis benn kilifa ma ne ko dëgg la am nañu waqf fii au Sénégal mais démarché bi ñu adapté baaxul par rapport ak fan lañu ñu bëgg jëmale hmm. euh, suñu suñu suñu koomu réew pour man waqf bi tey dañ ko war a lëkkale ak agriculture bi ci àdduna bi hmm. pour dëkk yi ndóol yi mën a génn ci ndool bi ñu nekkee mais soo xoolee malheureusement tey ces fonds sont utilisés si ay euh, niveau yoo xamante ne wax dëgg yàlla mënta régler le problème de la pauvreté dans le monde parce que dañu dañu dañu jalgati ni ñu ko war a doxalee. effectivement bi may wax l' après Mohamed foofu laay doon waxee ndax de son vivant ay jafe-jafe ñàkkul woon ndax nekk na fi di xeex ay inégalité sociale mhm. tey mu jóge fi xëy na am na benn moment wax dëgg yàlla. taxawoon na ci temm bu jeexuloon itam wàññeeku woon na mais tey dañu gis ne vraiment da ngay gis ay jullit ñàkk dimbalante bi fës lool comme ni nga ko waxee Arabie Saoudite li fa nekk ci alal kenn xamu ko te yaa ngi gis yenn réew yi jullit yi yenn jafe-jafe yi di fa am ay jullit di am ay jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu ko euh, imagine ñàkk yërmande gi itam fës lool ñàkk tolérance bi surtout parce que tey extrémisme beeg yooyu yëpp mën nañ ko caa dëxëñ te loola euh, ci Muhammad gisuñu ko ci benn yoon ñooñu dañuy identifié wu ci moom koo ci wax mu ne jullit laa sama classe gi fekk ne boo xoolee doxinam euh, am na lu bare loo xam ne tey euh, bu bi euh, ñëwaatoon sallallahu alayhi mën naa am sax du du xool kooku donc jéego yi ñu war a def xëy na ci jikko yi foofa laa waxe waaw ngëm ngeeg jub gi moom loola ci loxo yàlla la nekk dëgg la dëgg la dëgg la comme ni ñu wax rek moom moom xanaa ñaan yàlla mu dimbali ñu ba ñu tàbbi ci njub tàbbi ci njub tàbbi aussi ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa te yaakaar naa aussi suñu référé woo ci mag ñi li ñu fi bàyyi yaakaar naa kenn di ñun du sonn mooy maanaam di yeesal tagg bi ñuy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci seen i xasida di ko jàng te ñu dem ba am fay ba xasida yooyu am lu mun a def ci ruuxu doomu aadama ba ca des mooy di topp digle suñu borom yi di moytandiku ay tereem nu mu gën a nu mu gën a nu mu gën a bëree euh, léegi nag comme ni ma wax soxna si société bi ñu nekk te wër na àdduna xaalis dafa lëmbe àdduna du du Sénégal rek c'est partout dans le monde soo gisee sax nit kuy umra ji dem dëkki ci benn hôtel boo xamante ne juróomi ne nit ñooy fanaan ci néeg bi nañu koy toppatoowee ak ka dëkkee hôtel Zamzam bi tiim Kaaba gi dafa wuti ndax xaalis moo lëmbee àdduna loolu moom lu lu xew la. te bokk na ci li mu doon xeex. bokkoon na ci li mu doon xeex mooy inégalité yooyu. xanaa ñaan sunu borom tey jii moom rek moo ñu mun a dimbali. ba luy déclancher déclencheur am ba nit ñi defaat introspection euh, amal beneen doxalin bu bees ci dund. moo tax man am naa yaakaar ci réew mi ñu ne nekk du yàgg dara ñu ngi jëm ci épanouissement ay mag waxoon nañu ko ay mag ñaan nañu ko suñ yàlla dimbalee ñu am dal suñu xol yi nekk benn yaakaar naa lu rëy. mën naa xew ci réew mi ndax benn recteur euh, Boubacar bu euh, la mosqué de Paris yal yàlla yërëm ko dafa waxoon ci jamono il vingt ans ne wan nañu ko moom ne bis a ngi ñëw dans vingt ans lépp lu waay soxlaa ci ci monde bi Sénégal la koy utee jee donc ñun ñu am yaakaar ne jamono jooju dafa mel ni soreetul euh, ñu ngi nekk ci phase transitoire te lu mel noonu lu doy waar mën naa xew ci sunu réew ci d'abord taxawaayu mag ñi avant ensuite suñu yàlla dimbalee ba ñu tàppee suñu xol ni ko maam Abdou Aziz daan waxee suñu nekkee benn rek lu bëri dana mën a xew ci réew mi mais soxna si pour loolu am il faut ñu am un leader boo xamante ne dina nekk jàmbaar ngir réconcilier le peuple réconciliation peuple bi nag maa ngi bëgg a wax ñi ne fii ak ci nekk diaspora bi ndax tey ji gis nañ y a trop trop de problèmes entre les Sénégalais tey sax da ngay xool ni nit day jékki-jékki attaqué kenn kooku répliqué ñeneen répliqué mu nekk benn tension après wax ji dina bëri dana xóot dana ñaaw ah, ba juboo waaw mm-hmm. loolu nag daa bëri suñu réew ah. moo tax ma ne il nous faut un grand leader boo xamante ne dina dina soo ko séenee muy ñëw mm-hmm. di nga yëg ne bàyyi ngi ñëw mm-hmm. soo ko séenee muy ñëw di nga tiim dënnal xam ne ndey juy nàmpal a ngi ñëw soo ko séenee mu ñëw dinga xam ne ku mat kilifa mën a boole nit ñi ba pare suufeel boppam mu ngi ci jëmm ji waaw sallallahu alayhi wa fi ma bëggoon teeree ci sama laaju sànq bi mhm. mooy euh, wax nga ko euh, dafay ànd ak ndimbalu yàlla mhm. ngir euh, roy yonent bi waaye sallallahu alayhi wa ñàkkul nag ay tettal yoo xam ne tey euh, bu man ak sama classe gi bu nu jugoon nelaw ngir xam yonent bi sallallahu alayhi nan la ñuy def yan yoon la ñuy jaar ngir xam ko ndax itam yàlla niñ koy waxee defal kenn lu mu mën da ngay góorgóorlu sa doole yem en tant que nit mu ñëw jokkal la la nga xam ne moom rek moo ko mën tey yan yoon la jullit wala ku dul jullit sax mën a aw ngir xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom li nga ko wax ku ko xam bëgg ko xam rek bëgg waaw ñaari aaya laa bëgg indi ci alquran benn bi yàlla dafa wax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dañu la wàcce ngir nga doom yërmande ci univers bi léegi ñu laaj ñun doomu aadama comme yàlla dafa ne dafay waxanteeg les doués de raison ñu ne suñ borom da nga wàccee yonent bi ngir mu doon yërmande ci kaw suuf léegi naka la ñuy def ba dem tàbbi ci yërmande jooju yàlla wàcce beneen alxu beneen aaya wax ne inna allaha wa malaikatahu na ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu ne moom ak i malaykaam julli nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne yéen aji gëm yi julli leen ci gën gi mbindéef d'abord da ngay xool dafa ne ñun ak suñuy malayka julli nañ ci yonent bi yàlla moom mooy ma immense kenn mënu ko natt mais dafa ne malaayka yi nag soxna si dañu wax ne boroom xam-xam bi nee na soo jëloon malaayka yi boole leen ñoom ñëpp wàcc leen ci kaw suuf yàlla yónni leen nee na kenn ku ne indi benn pepp suuf mu ne suuf si dina jeex te genn wàll malaayka yi du ñu jot bari nañu kon mhm. ñooñu la àndal di julli si yonent bi te waxul ne sëlmal na mu ne ñu nag yéen na ngeen góorgóorlu di julli si moom lii moo indi. julli a dégg. li am solo da gisoon par exemple julli gi d'abord salaatu ala nabi mooy euh, di wax euh, bëri na nag mm. façon soo demee ci tijaniya mi ngi nekk salaatul fatihi mm-hmm. euh, cheikh jot ko directement mm-hmm. ci loxo gën gi mbindeef ci pay mm-hmm. bu tedd bi soo ñëwaatee am na yeneen salaatu soo demee ñu ne la miftaaxu baabu rasul muy cheikh ahmad badawi fii ci tànta am na salaatoom mais foo dem ci àdduna aussi am na ay salaatu ay yu nit ñi di jëfandikoo yoo xamante ne soo koy def na la jox apaisement na la jox paix intérieure dina ubbi sa xel dina la moytul moytandikuloo tooñ dina la moytul ndikuloo bàkkaar dina la dimbali aussi nga toftal sa bopp ci def lu baax. kon directement ak leeru gën gi mindeef sallallahu alayhi wa ndax soo demee. Euh, dinaa sax xaw a empiété tuuti mhm. soo demee ba ku mel ni cheikh cheikhul xadim mhm. wax ne ida katabtu tazarchul baahi wa sabaxa malaiku tibaahi mhm. xoolal mu dem ba am yëg-yëg ne ay bindam mi ngi yëngal arash léegi nag am na ñoo xamante ne mënuñu ko dégg li tax mënuñu ko dégg mooy soxna si mënuñoo taal cin ci benn kër nit ñi tëj kër gi lekk ba suur waa ji génn ci mbedd bi jeex nga ne ko yaboy bi nga reeree neexul <laughs> dafay doy ah. loo mosul munoo xam moo tax yenn saay ma gis nit ne dangay ngay jéem a dingat mm-hmm. ma ne yow balaa ngay dingat dangay ngay da ngay d'abord yegg fa kooka yegg très mais soo fa yeggul xamuloo la xew ca biir wax dëgg tey nii nga xamante ne mm-hmm. yàlla am na capacité anoblir mm-hmm. mooy goreel ay doomu aadamaam moo leen moomal boppam lu leen neex lu ko neex mën na ko am ca ñoom te sos ñi ñi sësu woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey mën nga gës wees weesal xaar ni gisul yonent bi mais dafa jeexoon ci moom tàkk mën nga gis tey ji cheikh al islam mën nga gis cheikh Abdoulahi ñas nga dem fii ci Égypte tam waxoon naa la fi léegi cheikh Ibrahim di sooxi ñëw fii ci Touba gis nga cheikhul Khadim taxawaayam gis nga Seydi Hadji Malick donc ñooñu dañoo liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu teggil leen voile yi wan leen loo xamante ne maanaam c'est pas à la portée de ñun ñii nga xamante ne ay adepte lañu wala ji jéem a seen seen i pënd suñu xasee ba wax nag li ëpp solo même su fekkee wax ji yow àndoo ci maandul c'est d'une importance capitale donc connexion boobu nga wax léegi de la lumière ahmédienne wala de la lumière mohammédienne li koy maye lenn kese la mooy waa ji di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi nag soxna si kuy julli ci moom dangay ànd ak dal kuy julli ci moom même su fekkoon ne amuloo woon taaru biti salaatu ala nabi bi mun na la ko jox même soo amul taaru biir salaatu ala ala nabi bi dana connecté rox bi nekk ci sa biir yaram jox la taaru biir bi nga xam ne moo ci gën a yéeme mooy nit ku génn àdduna yaramam màndi woon ci salaatu ala nabi ci kaw suuf bàmmeel le corps entre dans un état de putréfaction après sept jours selon température dëkk ba ñaar ñoo nekk ci biir suuf muy sax ak suuf bokk nañu ci taalibe yonent bi yi gën a mag ñoom ñaar ñooñu su fekkee ne yaram bi dafa màndi ci salaatu ala nabi suuf du tañ ci yaram bi loolu mooy benn ñaareel ba su fekkee nit ki dafa màndi ci salaatu ala sax yi dañuy dugg en conclave parce que balaa ñuy ñëw di di di jël yaram bi bay bëtt càngaay bi di dugg ci yaram bi pour séddoo ko dañuy waxtaan ñoom d'abord waxtaan bi ñuy waxtaan ñaar la mun a aboutir kii de bëgguloon yonent bi ñun dañoo war a jëfandikoo yaramam nañ ko jëfandikoo kii bëggoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ah li ñu war a def nag léegi mooy li ñu muucu ci leer muy parfum bu bàyyi ko ci leeru yonent bi nañu fexe di ko ko jàllaleel mu koy wéttali di ko ko wéttali ba mu dem bis penc ñu jébbal ko yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment lu kéemaane la waaw lu kéemaane la gën gi mu ngi xëy na dina dina xaw a doy waar ci yenn nopp yi waaye ko xam yàlla ak mbiram xam itam li mu jagleel yonent bi ci cër. nga xam ni euh, lu ne mën na koo am. ci teraanga ndax ndax soxna si soxna si jigéen. Ah. jigéen su amee bébé. dina ko wooyee Butchou. dina ko wooyee mon trésor. Hmm. ma petite princesse. Ah. mon prince. lu ne la koy wooyee <laughs> façon tur yooyu. Ah. suñu borom dafa fiir ci cofeel gi mu am ci yonent bi. moo tax moom tamit mu utal ko ay tur yoo mm. xamante ni kenn xamu ko day jékki-jékki rek ne ko xaa miim <laughs> jékki-jékki rek ne ko taaha jékki-jékki rek ne ko yaasin jékki-jékki rek ni ko wax kaaf xaa yaa ayn saad nii lay waxanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko nabb nabbee <laughs> di ko nabb moom gën gi donc kon ñun war nañu mun a am yaakaar ne lépp loo xamante ne teranga la bu bàyyi ko ci yërmande suñu borom mu jagleel ko gën gi mindeef war nañu am yaakaar mu tàbbi suñu loxo su fekkee ne gëm nañu ne loolu mi ngi dund ci gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam. yooyu la ñuy euh, jeexalee waxtaan wi macha allah am na solo lool Cheikh Alassane Sène euh, li nga ñu ci wax gëm naa ne li ci des moo gën a bari fuuf xëy na laaj yi sax moo matewul ba mën laa yeggale ci yooyu la tontu waaye loo ci am rek macha allah dafay doy ñu barkeeloo ko woon rek ci gàmm gi indiwale itam ci contexte bi nga xam ne moom la ñu nekk muy contexte bu koy attaqué pour wax ne aussi bu weesoo lépp on doit mais war nañu ànd ak dal man loolu laa ci gëm ndax yonent bi ku ko xam ci loolu nga ko xam amul luñ ko deful waaye jikko ba mu yoroon most changé te mm-hmm. itam yàlla ci jikko la ko taggee mm-hmm. yàlla na nu uh, jotale ci leeram ñu lay gërëm yow itam mm-hmm. di ñaan yàlla dëgëral taxawaay bi daal di itam uh, ñoddi fan yi bu baax a baax gën laa uh, nag dugal ci géejam goog nga xam ne yaa ngi ciy xuus ba leer gi wesaaroo ci ñëpp seen jërëjëf amin jërëjëf man maa ngi leen di sant bu baax di sant waa réew mi fm waa réew mi point com di leen gërëm bu baax suñu tey mooy suñu ñaareelu émission beneen bi c'était politique tey jii c'est c'est religieux ñu waxtaane leeru yonent bi dimbali nga ñu nag parce que dé dégg naa ci ay mag mais su ñu amee ay nit ñu toog di waxtaane yonent bi malayka yi daañu wax yàlla ne ko diw doomi diw doomi diw mi ngi waxtaane ci sa soppe ñu ne kon nañ leen defal teraanga teraanga yi mi ngi ci loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk lu rëy ci ñun li may ñaan nag mooy nit ñi ànd ak dal ci contexte bi ñu nekkee d'abord contexte Covid am ku attaqué euh, principe bu ki ñu sopp ñun muy gën gi mindee sallallahu alayhi wa sallam ma remarqué ne bi Macron waxee ne que lii dañ koy wëyal euh, dañ ci def ay quelques jours rek ñu delluwaat ñoom ci confinement ça veut dire que noppiloo nañ ko par force encore donte mi ngi jóg di jéem a confirmer la mu waxoon mais daal euh, li may ñaan rek mooy nit ñi ànd ak dal ñu xam ne Macron man pour man daf ñu coxataan ci dem ci gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que moo dogguma la sax ndax xam ji dafa provoqué ay salaatu ala nabi yoo xam ne tey kéemaan la waa léegi nag loolu yëpp li muy wane chaque fois rek am na kuy réveiller cofeel bu bees tàq bu nit ñi di gën a am ci gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam moo tax man positivement dama ne dimbali nañu dimbali nañu tey jii ba ñun ñu jokkoo sax ak ñoo xam ne mosuñoo jokkook ñoom mm-hmm. dimbali nañu ba ñu dugg ci ay challenge yoo xamante ne ay salaatu ala nabi la man bëggoon bi sax xëy na te xamuñu ko man mii di waxante ak yow <laughs> eh, dama joxe woon sama kàddu fan yële ci ay nit ñoo xam dañuy woon dañu def onze mille salaatu kenn ku nekk pendant trois jours man gëjoon naa def onze loolu mais ma dugg ca challenge boobu ba matal naa ko aussi te gis naa ne am na ñoo xamante ni ñu ngi ci ay 100 millions. ñii ci ay 200 millions. donc wax dëgg yàlla. waaw te xéwal yi dellu si ci ñun la. xéwal la xooloo xéwal boobu rek yàlla wesaare wu nag ci àdduna yëpp. ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam yàlla barkeel lépp may ñu yiw wér gudd fan ak sutura baal ñu suñu bàkkaar ya ñu defoon ñu def ak yi ñu waay def yàlla bu ñu yàlla topp ci dara lu ñaaw ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam yàlla petrol ak gaz bii di am am suñu réew mu bañ a nekk malédiction mu egg ba ci askan bi fa ñu gën a ndoolee ñu jëriñoo ci ba kenn ku ne gis sa bopp ci épanouissement bi ñu bëgg ci Sénégal yàlla naka def jërëjëf Cheikh Alassane Sène la ñu doon dalal ci démb tey doon waxtaanee yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko delloo njukkal ci gàmm gi doon itam euh, waxtaanee contexte bi ñu toll dimbale euh, leen dimbale suñu bopp aussi ci fàttaliku ko fàttaliku ay jikkoom ndax euh, mën nañoo jariñ démb ak la woon kon Fatou Thiam Ngom nekkoon ci kàddu gi jaawo jàllo ci machine bi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci sunu page Euh, YouTube réew mi officiel dina fa nekk ñu yendoog jàmm